Union des jeunes pour le développement de Bambey ñu naan ko UJEB ñoom day amaloon nañu benn tournoi boo xam ne dañ ko jege arène Jakartaman yi nekk ci biir Bambey ñoom nag defoon nañu final boobu nga xam ne nag moom moo dajale dawalkatu Jakarta yooyu eh, ci ñaar fukki fan ak juróom kañ bàyyile woon bés ba di El Hadji Dia day yëkkati nay kàddu di ko rafetlu. ambassadeur mu ne mu ngi kontaan ci initiative bi nga xam ne jeunesse su UJEB jeunesse su Bambey ñoo ko ak ñi ko jiite muy la président Mor Gueye ak Abdou Sall ak ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci seen ginnaaw El Hadj ambassadeur mu nekk li ko gën a neex ci mouvement bi nee na xale yu jigéenu Bamba yu correct yëpp yu nangoo jàng te respecté seen waajur yëpp ci lañ bokk te El Hadj mu ne comme dañ na Bambey xale yu jigéen yi El Hadj lañu àndal fu mu taseeg ñoom dina leen rendre hommage dina leen sagal. El Hadj Dia kontaan na ci jeunesse bi kontaan na ci xale yu jigéen yi kontaan na ci waa ISEP. moom mi le sax nee na day wéy di jàppale bépp ba jën bu Bambey boo xam ne rek dafa bëgg a liggéey waaye nag politique sax taxu koo jóg. nee na mi ngi félicité ASC Sénéra ASC Arrêt na mi ngi encouragé Arrêt Léona. Euh, bi ma ñëwee. bi mu ñëwee. jàppale na waa association bu 300000 francs appui ndax xam na ne organisation métti na te lii ñu def nii jafe na El Hadj Dia mu ni moom politique boolewu ko ak yéen indiwu ko fii nee na yéen a bokk dëkk bi war a dimbalante wala jëflante wala jàppalante te yàlla rek tax ndax seen mag la te yéen ay rakam ngeen. ki nga xam ne moom moo jiite kuréel googu di Mor Gueye moom rafetlu na ndaje moomule ak fair play bi nga xam ne moom moo ci am tey wax ne ña ñëpp ñëw jàpp eh, ci fi nga xam ne moom moo di union des jeunes pour le développement de Bambey. féliciter le gagnant le capitaine di encourager aussi l'équipe perdant di wax ne vraiment joué ngeen ko ci fair play xeex amul xuloo amul coow amul vraiment ñu ngi leen di remercier ci lool comme ni nga ko waxee rek lépp ci biir Bambey la aussi. kon ñun ñëpp nañ ko sant te di ko encouragé tey jàpp mu jëm ca kanam UGEP UGEP bu ñëpp la parce que comme son nom l'indique union des jeunes pour l'émergence de Bambey te fii jàpp naa ne ñun ñëpp ay jeune lañ kon li njëriñu Bambey rek moo ñu tax a jóg te dañuy ñaan ñoom yéen ñëpp ah, am Jakarta maa nag ñëpp ñu adhéré ci biir UGEP moom lépp ñëpp la di féliciter aussi le parrain parce que moom jàpp na ci bu baax baax a baax vraiment di di ko wax ne mention spéciale aussi Dame Ngom ñu ngi koy remercier aussi. final ba nag daje woon ñaari rencontre yoo xam ne nag bu ci njëkk ba arrêt police moom moo dóor arrêt Shell ñetti bal ci benn ci final bu ndaw ba waaye nag final bu mag ba nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di arrêt Senra ñoom ñoo door ale lew na benn bal ci dara Aliou Mati sax moom moo toj caax ya